faatu nga woo de <laughs> faatu ko kii defu faatu ko faatu. faatu est-ce que du soxnaam rek. ngi woo sa de. doo mooy Faramay. ah. Faatu. Ba Ba dafa am ku tudd Faatu. paa ah. ah. lu ne lañuy def seen téléphone ay Faatoo. aw balde aw balde aw balde. aw balde maa ngi siyaar bu baax. papa ñoo ko maa ngi siyaar bu baax yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si euh, man la mel mbër mu ñu wax sew diis. mboy moom mi ngi ñuy déglu. sew diis sew diis. sew diis. waaw. yaa ngi si jàmm baax. alhamdulilah. Ah, man de mbër laa. waaw mais dëgg yàlla yow yaa ma tax di góorlu ci làmb ji. ndax damay déglu say wax ak say conseil ma ci jàpp baax a baax a baax. waaye nag yàlla dafa dogal ma am ay jafe-jafe ne woon dinaa la ko wax. ndax damaa am damaa am benn maara bu ma jotaloon. waaw moo ne ma dootoo daan mbër. ah man kay xanaa moo xam waaye nag ñetti combat gi may bëre di daanu. bi ma demaatee ci moom waxtaan ak moom mu ne ma. waaw xoolal ci paa yi nekk ci làmb ji kenn. waaw mu may la ab yéreem doo ñëwee ma nga ray ci am béy wu ñuul kuk ma defal li ma lay defal. laa ilaaha illallaah. la ko defalee moom du soobee yàlla. Ah. di nga commencé daan. ma ne ko waa léegi d' accord xaaral ma woo ñox baay moom moom benn problème bu ma ko waxee dina ma ko may. Mhm. Euh, mhm. a. lu ma wax muus muus. waaw muus bu ñu. non dane dane. muus bu ñuul ah. waaw muus bu ñuul muus bu ñuul muus bu ñuul la ah, muus bu ñuul. waaw loolu ma wax dana muus mu ñuul kukku daal. waaw la ñuy rey ci yére bi. dindi bëddi. ji waaw du ko defee wekk bët yi du ko defee du ko reyee. dinaa daan ne ma incha allah bi doo daanatul. waaw moom moom di ci moom lay génn waaye dootul feeñ ci yow. waaw man nag dama bëggoon euh, boole laag hip hop dama bëggoon boole laak hip-hop. Mhm, kapel bi. parce que xam naa ne loolu euh, jàppandiwul ci man. Mhm. parce que jël sama yére daal jox ko ñu rey ci. Euh, nee nee na nangu na de nee ah, na nangu ah, na. c'est bien comme nangu na baax na. ah. déedéet nangu ma de <laughs> koy jox. moom foo nekkee ma jël si ko. Pikine Pikine <laughs> booy soxla nga nit ñi quoi. mais gën a grave mooy xoolal. da ko delloo xaritam ba. <laughs> ipo ipo ngaari waaw. doo woo ñaar tooñ ko. ah waxuma waa ñaar. ñaar xarit loo. waaw. <laughs> lu muy loxo la.